jaa ngeen jëf sama gars yi caméra de surveillance yi wax nañu ki ngeen gis ci image yi mu yére bu ñuul mbaxane mi ak t-shirt bi mooy sàcc bi toj sa wata tey ci suba gi ci alxames ji nga xam ne férié la mu ngi ko def sept heures cinq du matin ndax loolu la caméra de surveillance yi affiché boobu fekk na gardien bi ci koñ bi ñibbi na boobu fekk na borom boutique bi ubbeegul paa demoon jàkka ja ñibbisi nañu ba fatu ci seeni kër tànk yi ngeen gis da ko romb rek dugg ci kër gi mu door a tàmbali ci liggéey bi kon fii la toog ba mu leer ko ne koñ bi wét na lool xale bii ngeen di seen ci daara ji la nekk ci koñ bi mu daal di woggan ci tubéyam jublu ci woto bi ndax dafa romb saat njuumte googu laa def te nangu naa ko te di leen ci xelal ngeen wattandiku bàyyi benn objet de valeur ci seen biir woto man nag li tax ma bàyyi woon sama euh, sàkk sama oto mooy démb damaa yittewoo woon sama studio pour voix off yi may def publicité yeeg voix au documentaire yeeg publi reportage yi ma daal di fab sac bi def ko sax woto génn sama kër 5 heures du matin dem si 19 heures 45 yàkkamtee seetaani match bi ba fàtte sac bi ci ginnaaw donc bi ma reere ba pare ak coono boobu ma ne xaaral naa dem tëddi xaw ma woon ne waa ji dinañu ginnaaw bu fekkoon ne jour normal la 7 heure bi dina ma fekk man boobu daanaka yegg naa sama bërëbu liggéeyukaay te daanaka jamono yi may def résumé d' actualité fii nag dafa ñëw ci wata bi tànk yi ngeen di seen waa ji la mu xool ba mu leer ko ne kenn nekkul ci koñ bi mu dool di euh, fab lu mu tojee vitre oto bi dellu siwaat mu leer ko kenn déggul toje yi mu dellu siwaat dugal loxoom ne coppet saak bi dal di romb waaw fii la fobee voilà fii la jële sac bi sac bi nag benn ordinateur moo ci nekk benn carte son Neumann benn micro professionnel studio benn zoom HN6 bu ànd ak accessoire yëpp am na ay casque ay euh, support am na ay trépied micro am na yëpp daal ci biir sac bi ngeen seen donc ñu ngi ñaan ñëpp ñi nga xam ne dañuy ñëw di leen jaay bagage yi jàpp leen ne ku ko jënd ndey ji sàcc la la yoon di toppee ndax recel la sac bii ngeen gis sac bu marron la mu ko def 7 h 5 ba 7 h 15 waye waa day dem ni rek waye du sori ko leeree ne lim wa waa dellu siwaat na gis nga bi mu dellu siwaatee dafa melni dafa am ku muy dajeel mu neggandi ab dir ba kooku jadd mu door a dellu siwaat ci woto bi fi nak lay ubbee boîte à gants bi doon ko luññutu di xol lan mo ne ci biir boîte à gants bi malheureusement pour lui

ay 19 heures 45 la wàcc sonnon lol ci journée bi nak don yakamti ne xaral na gaw daw seetaani match bi deuxième mi-temps bi du moins voilà bi ma que dama yakamti dama garé normal rek tej buntu bi verrouillé daw bu laaloon buntu bi porte bi jëm ko ubbi di alarme bi dina déclencher wu mais dafa tej vitre bi fab sac bi ordinateur bi nak amoon na samay dolé yu bari ay publicité jambour ay euh, voix documentaire yu ma def ay voix publi reportage ay projet yo xamné c'est des scripts des des ay mbir yu bari dal ay projet yu bari dal la ñu ci woon ci biir ordinateur donc fi ñëwaat na xol ba mu leer ko ni dara nekkul ci boîte à gants bi lu ko intéressé manam moy su diggante ñaari chaise yi fi ñu nekk foofu la ubbi yam ci fofu ay kurus ak ay parfum ak ay singom ak yoyu xamna yoyu yooyu moom wittaloowu ko euh mu dal di koy fab donc li ma dal ni erreur la def nañ nak suñu kéem lay katal dem ci fa mbaxane doone ben muy sandaram jox len élément yi ne len nañ ñu jappalé ci identifier ni ki moy waji ngeen seen bu tok bi moy bi mu di opérer di xol ba xam nit dina ko rombam déet bi nak ci la jëri sat bi ni wërëñ wat takai ay your yor téléphone portable am dox comme si de rien était koku gis day fokk ne day day liggéeyi image yi daal lii la ñu caméra de surveillance yi wan ñu ne woon nañ ko partagé ak yéen ñu ngi leen di gërëm ci taxaw bi ngeen di taxaw jàngeen jëf